Euh, yow lépp loo def benn rek mun naa koo def fukk parce que yow tentation yi góor di am jigéen a ko ëppale téeméeri junni ak noo mënti mel jigéen mooy ëpp tentation gis nga fii nga toog nii mhm. maa yow fii la toog ak gelam ah, fii la woon fii jàkkaarloog dex bi di def lu ko saf te taa damaa bàyyi lu bëri bàyyi sama bàyyi sacrifier sama àdduna lu bëri arrêté sama jàng bàyyi ne wuti ma sax liggéey damay toog di ko toppatoo. ça va yaa ngi ci jàmm ça va ni nga euh, euh, euh, romb la fi. kuy kooku. Fatou Kiné mooy ki nga doon waxal keroog fii. kat. non góor moo doyluwul. Hmm. góor ils sont de nature infidèle insatisfait munoo def yow soo nekkoon urul ay ni gën a jonge ci àdduna bi lépp loo leen defal c'est que yow yaay seen rab ngeen génn ci mbedd mi wuti dem ak noonu.